asalaamaaleykum wa rahmatullah aleykum asalaam bismillahi rahmaani rahim wa inni aiza bika rajim rabbi aouzu bika min hamazati shayatin wa aouzu bika di muslu ci saytaane di ñaan yàlla mu defal nu ndam ak tawféex ba ñu dajeek ngërëmal sëriñ bi fas yéene comme niñ ko daan defee laabirawante ak suñuy mbokki taalibe ci téere bi tudd Tazawudu Sixaar ñëw ci darsoob juróom-ñetteel waaw eh, mu ngi jàngale woon ñu ngi doon jàng ni ñuy gëme malaaka yi la aju ci ñoom lépp ak fañ leen war teg mu ñëw ci ni ñuy gëme téere yi faslun lii ab dog la fii kutubi samaawiya ci téere yi ko jóg asamaaw imaanukum seenu gëm bil kutubi ca téere ya at tasdiqu moo di ngeen dëggal bi annaha ci naka téere ya inzaaluha seenu wàcce xaqiqu lu dëggu la wa annama ak lépp la nga xam ne fii fiiha nekk na ci téere maan mboolem seen xaqul dëgg la bila shakkin ci lu dul benn sikk sàkka mu ne fa man sadaqaha koo xam ne dëggal na ko naa la mu am aloola kawe ya mu ne téere yi nga xam ne suñu boroom moo leen wàcce suñu boroom moo tan ay jaamam ci mbindeef yi ci doomu aadama yi déey leen lu ñu war a jottali ngir ñoom ñu jottali ko ci mbindeef yi Seydina Jibril mooy ndaw li nga xam ne moom la daan yónni ñu di ko tudde li mu daan indi yonent yi ñu di ko tudde wahyu loolee nag e, buñ koy dañ ko daan bind di ko dajale mooy dem a dem bo ñu dajale ko mu doon ay téere ñu di ko jokkalante ci kaw suuf di ko jàng di ko jëfe waaw comme alquran bi muy wàcc e, e, téere bi xeelu ñëw dañ koy eh, wàcc lépp lu ñëw rek yonent bi bindulu ko ba ni mu màtt bo ci ginnaawam ñu dajale kaamil bi mu doon ab téere boo xamante ni dañ koy jokkalante kon boo bëggee gëm téere yooyu daal ci gàttal da ngay gëm ci sa xol nga dëggal ne téere yooyu lu am la te suñu borom moo leen wàcce ci ñenn ci ay jaamam ngir ñu jottalil ko ko ci kaw suuf nga gëm la ca biir téere yëpp nga gëm ne loola lépp dëgg la mu ne képp ku ko gëm day te dëggal ko te muy dégg ci moom maanaam dana am ak texe àdduna ak alaaxira dana am ak kawe àdduna ak alaaxira mu ne àddaduha seenub lim xaddun téeméer la ak yent waya un fukk unzilat wàcceef na ko minha ci téere yooya ala aadami ci sunu maam aadama fii ca la nga xam ne xat sabata sax na mu ne nuunun fanwe nuunun juróom fukk ala ci yonent yàlla si sa ibnihi kay doomi aadam summa ala id summa laamun topp fanweer ala idrisa ci yonentu yàlla idris yaa un fukk ala xilli ca xaritam ba wilaan ca toftale mu ne téere yooyu boo bëggee xam seenub lim téeméeri téere la ak ñeent cent quatre téere xaddun la xaaf di firi téeméer deel di ñeent boo ko boolee mu nekk téeméer ak ñeent mu ne fukk la ci suñu boroom wàcce woon ci suñu maam aadama yonent yàlla bu tudd Chicha ñu ne soose lañ ci jublu doomi aadama la suñu boroom wàcce woon ci moom juróom téere yonent yàlla Idris suñu boroom wàcce ci moom fanweeri téere Ibrahima xalilullahi suñu borom wàcc ci moom fukki téere boo boolee fukki maam aadam ak juróom fukki yonent yàlla ci sa day dem juróom benn fukk nga andi fanweeri Idris mu nekk juróom ñeent fukk boo ci tegee fukki maam Ibrahim mu nekk téeméeri téere mu des ñeent ñeent yooyu benn téere bu nekk nag mu xajale ko jox ko ab yonent mu ne tawreetuha tawreet seen xadix tawaaha laq na ko muusa muusa injiluha injil seen xadix tawaaha laq na ko isa isa suma xawaa topp laq topp laq na zaburaha zabur seen daawud daawud kamax tawaa naka mu laqe al furqaanaha furqaan seen al mahmuudu kanu sant mu ne ñeenti téere yooyu des eh, bi ñuy tudde tawreet moom la joxoon seydina muusa injil mu wàcce ko ci Seydina Isa Zabour mu wàcce ko ci Seydina Daoud Alqur'an nag mooy suñu Alqur'an ji mu wàcce ko ci Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa boo gëmee ñeenti téere yi nag danga leen a war a gëm gëmu tàqale teqale tawreet injil zabour ak Alqur'an ñu koy Alfurqaan boo leen gëmee ñoom ñeent. yi ci des nag boo gëmee ne suñu boroom wàcce woon na yeneen téeméeri téere ci yeneen yonent du ajowoo nga leen di teqale eh, mu daal doy waaye ñeent yi moom danga leen a war a gëm ba pare maanaam teqale leen xàmmee leen mu ne alayhimoo yal na doole nekk ci ñoom asalaatu dolli taral wasalaamu ak dolli wóolu wala dolli mucc dolli musal maa habahum fekk sopp na leen rabbul wara borom bindeef yi asalaamu kay aji mucc ci ayib mu ñaan yàlla dolli leen teraanga nag ju sax dàq ak jàmm ju sax dàkk ne fekk mu ngi leen di sopp nde yàlla moom ab yonent eh, du deñ di ko sopp bu faw maanaam julli goo xamante ni daal salaatu salaam muy jàmm ak mus goo xamante ni du am ab du am fenn fu muy yem nde yàlla du dañ mukk di sopp yonent yi moo tax mu ne maa xabbahum ni fekk sopp na leen rabbul wara borom bindee fi assalaamu suñu boroom mi nga xam ne mooy aji mucc ci ayib waaw kon boo ko boo ko bëggoon a waxaat ngir mu gën a leer nga ne téere yi suñu boroom wàcce da koy da ngay gëm ne suñu boroom ñoo leen wàcce nga gëm ne ca yàlla lañ bàyyeekoo boo boo gëmee loolu ba noppi nag nga gëm ne téere yooyu lépp lu nekk ca biir rek lépp lu la ca wax rek ca biir téere yooyu lu dëggu la ci lu amul benn sikki sàkka mu ne boo leen gëmee te dëggal leen rek kon nga am. lépp loo bëgg ci àdduna am la nga bëgg ci àllaaxira seenub lim nag téeméeri téere la ak ñeent fukk ci maam aadama juróom fukk ci yonent yàlla Chibsa ci Seydina Idris fukk ci seyna Ibrahim boo boolee fukki maam aadama juróom fukki Chibsa juróom benn fukk la ak fukki maam Ibrahim mu nekk juróom ñaar fukk nga indi fanweeri Seydina Idris mu nekk téeméeri téere ñeent yi ci des mu teqale ko tawret mu jox ko seydina musa injil mu jox ko seydina Isa zabur mu jox ko seydina Daawud alquran mu jox ko seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo génnee ñeent yi nii nga leen teqale yi ci def nga gëm ne suñu boroom wàcce woon na yeneen téeméeri téere ci yeneen yonentam bu boobaa mu daal di doy mu ñaan yàlla dool leen teraanga ak jàmm faw faw lu amul ab waa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu kon ñu yemale suñu kàddu foofu tey tuubal ñëpp di leen jéglu ci ñàkk fasaaxa gi ñàkk leer gi waaw yàlla suñu borom boole ñu dimbali bu laabiré wante gi ci jublu rek ñu am ci daje ci ak ngërëmal yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba ci barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiin